yi nga xam day wàllante dina dañ donc loxo toujours gis-gis nii ci setu gis-gis nii loolu bokkul ak setu doomu jàngoro setu jàmm jàngoro moo gën sew loxo mën na set ci gis-gis te setul ci doomu jàngoro képp ku ko weddi rek jëlal saabu wala dara nga jàpp say loxo set na ba yàgg nga ne ah, xaaral ma raxasu sax di nga gis tilim ja cay génn tilim jooj ci gis-gis am na doomu jàngoro nag yu mu àndal yoo xam ne boo ko raxasul woon ba mu set dalay lay topp te looy def da nga koy yóbbaale euh, raxasu nag du jël benn bool fukki nit ñëw dugal ci seen loxo raxasu kooku da ngaa jël doomu jàngoro ya rek ngeen dajale ko ca bool ba ku ñëw càpp ca yóbbaale mais raxasu euh, li ñuy wax ci tubaab essuyage da ngay fomp ndax booy raxasu sa loxo ndox mi tuuru day dàq doomu jàngoro ñu waddaale dem wante bu ngeen ko boolee waddal ko ci benn bool kooku mooy na ku nekk ñëw jël yóbbaale ba nga fa indi woon ak beneen boo fay fekk ngeen boole yóbbaale lan moo ko fa mën a rey bu fekkoon ni da ca def javel eau de javel day rey doomu jàngoro bu fekkoon ndox moomu da ca def javel kon bu ca dugg mu rey la mais bu dee saabu kese saabu du rey doomu jàngoro saabu daf koy raxas mu wadd kooku nag kon waddal ko ci au courante c'est-à-dire robinet wala loo xam nga raxasu mu dem mais boo ko defee ci bool fa la nekk nga ñëwaat keneen ñëwaat keneen ñëwaat ngeen dajale ko donc raxasu dangay ngay raxasu muy dem mais bu raxasu mu des keneen ñëw di ci dugal loxoom noonu la ñuy raxasoo euh, suba defe naa ne la ñuy màggal journée internationale de l'hygiène des mais pour wan la la setug loxo importance bi mu am ci ci wàllu OMS ba ñu wutal ko bis boo xam ni dañ naan nañuy def ay activité ñun ñii dañ koy màggal ndaamaatu chaque année dañ ciy def activité pour nañu jàngal nit ñi ñu gën a dellu siwaat ci setu loxo euh, bu ñuy joxe ay exemple souvent dama naan leen ñun de xam nañu setu loxo xëy na kay euh, ni ñu koy faram ci tubaab lañu ñu tey jii amul kenn kuy tibb ñam teg ko bëgg ko jëmale ngoon di ca dugal loxo kuy tibb da nga koy tibb ci tàng bi mais loxo du ca dem ndax bu ca loxo demee balaa timi samu forox kuy tibb di jëmale suba wala jëmale ngoon gan guy ñëw ngoon loxo du dugg ca ca ñam parce que bu ca loxo duggee euh, dañu daan euh, gis booba xamuñu woon li tax euh, bu ñu ñëwee ubbi dara mu forox mu mu forox ñu ni kii de am na ku ko laal waaw parce que ba mu ko laaleeg loxo da caa dugal doomu jàngoro doomu jàngoro yee màgg ca ba indi ca mu ënn bu dee cere walla mu forox bu dee lekk ñu ni ah dafa forox mais parce que loxo ko laal bu ko loxo laalul woon ñu tëj ko mën nga dem ba suba xanaa mu yàqu beneen façon yàqu boo xam ni comme champignon yi naaw ñëw tegu ca mu yàgg fa ba commencé def couche bu kaw mais doomu jàngoro yi si duggee ci loxo moom bu ca duggee day mel ni culture daf koy daf koy day mel ni tooke nga gis ni loxo ak boo raxasoon sa loxo ba pare nga dem lekk ca ceeb ak say loxo ba pare ub ko fa bala muy am ay waxtu mën nga ñëw fekk mu forox pour wan la ni ay loxo li ci nekk ci tooke dafa bare donc moo tax mu war di set tout le temps te bañ koy négliger boo gisee ñuy def solution hydroalcoolique pour bëgg lu gën a gaaw comme moom day rey te amoo jotu foo toll di raxasu nga jël daal di laal ci say loxo pour que lu fa nekk mu rey ko ba leneen di ca taxaat xanaa mais la ca nekkoon moom rey na ko luy tooke donc loolu dafa am importance ci affaire hygiène loxo yu set euh, yaram bu set parce que feebar yi ñu doon wax ci xale itam feebaru der itam ci la bokk parce que bare na lu ko xale yi jàmbat buñ nekkee te feebaru der yi am na ci yoo xam day wàllante euh, yoo xam ne bu ko benn xale amee rek daal ko daal di wàll moromam moo tax mu teel ko gis baax te loolu set gi dina ko tax ba duñ ko am euh, feebaru kwasa kwasa euh, dañu mës a dem ci benn daara suñu benn xarit médecin ñu toog ba yàgg benn xale ñëw ni dafa am kwasa kwasa ñu koy xool di ko faj kii ni ah bu xasee kenn am day ñi ko am bëri na daal ni ko demal indi sa moroom yi am sa feebar moom tam mu dem jiital ay moroomam indi ñuy jiital di indi ba yàgg ñun leen ñii yéen ñii seen daara ji affaire bi bëri na fi de kon nag baye boo ñu xool xale yi ko am yépp ñu isole leen wutal leen garab sàngandoo leen pour que ñu wér jekk ba yàgg suñu benn kii ni ñu ah moo ne de ci ñi leen di jàngal am na ñoo xam ne bëggoon nañu ñu seete leen feneen ñu ni kon nag nañu ubbi beneen consultation pour mag ndax ñoom am na luñ bëgg a wane ndekete ci sëriñ si sax am na ci ñoo xam ne am nañ kwaasa kwaasa mais mënuñu ko wax il fallait que ñu nëbbatu fenn pour que ñoom tam ñu mën a wax seen jàngoo pour wan la ni la léeg-léeg ci biir daara yi sax même sëriñ bi ci boppam wala xale bu mag bi leen di toppatoo mën nañu am feebar boo xam moom dañ ko ko walaale donc loolu jara saytu la ndax boo nee rek man doomu la dal fekk keneen ka tam ngi ko yore ni ceel loolu souvent dañ wax ñu bàyyi ci xel ci kii la bokk hygiène collective bi nag mooy li nga xam ni yéen ñëpp ko bokk muy saytu ñu ñu mën a nekk parce que ki nga xam ni setul dend ak ki tamit mi ngi koy yàqal donc hygiène bi dafa war a général ñu leen ko war di jàngal di leen ci tàggat hygiène nag nekkul ni damay sol lu rafet nekkul ni damay sol lu cher mën nga bañ a sol lu rafet te set mën nga bañ sol lu cher te set mais man euh, beneen côté bi nga xam ni tamit euh, léeg-léeg euh, dañ ci am problème mooy donga daara ni ñuy bëgg a présenter donga daara comme donga daara bu set donga daara bu sol daal comme si dong daara sax à tilim moo la jik mel ni donga daara tilim ni mu ko jigee jigeewu ko keneen mel ni dafa am téere boo xam ni xëy na wala léemaay goo xam ni dara du ko dal tilim wàññiwu ko dara lekk lu lu lu lu ñu ragal sax moom xëy na keneen boo ko woon ni ko kaay lekk lii mu ni ki nga ni donga daara mu ni ah mën na ko lekk mais fa muy feebare kooku du ko fekk fa muy amee problème kooku du ko feebare doomu daara nit la comme ñëpp soxla set soxla sol daal soxla bañ a am góom soxla bañ a am risque mais bu ñu bëggee ni euh, daara la nekk amul problème bu ma ko gisee mu mel ne ni sax euh, sama yaram du daw bu ma ko gisee mu mel ne ni du ma ko yóbbu hôpital loolu dafa war a xew yi te gis naa ni ñu bëre quand même euh, dépassé nañu loolu léegi ñu ngi fexe ba seen daara di nekk référence da ngay seetaan télé ñu lay wan ay daara ñoo xam ni ñeewuñu benn beneen benn bérébu liggéeyukaay euh, jàngalekaay ndax lay dem ci wàllu set lay wal dem ci wàllu toppatoo xale yi lay dem ci wàllu environnement bi loolu yëpp ñu ngay sàmmonteeg moom te loolu euh, lu am solo la parce que bu ñu duggee ci wàllu environnement muy beneen point ci la wàllu aussi ndox ndox mi ñuy jëfandikoo ndox mi ñuy jëfandikoo war nañ koy saytu parce que xëy na doo am toujours ndox mu nga gënal wante boo amee ndox nga jël sa quantité yi ñuy wax ci eau de javel def ci ndox moom léegi mases na ko naan wante boo nee man tàyyal naa defar ndox mi naa ko jël noonu rek kooku yaa ngi am problème parce que tey jii lii am ci feebaru biir buy metti biir buy daw yaram bu tàng euh, boo waxee ñu ne la dafa vidal Euh, man 2006 bi ma jëkkee gis ku am Vidal dama toog ba yàgg ma ni waaw man Vidal Vidal bu ma koy dégg ay bi may jàng di def ay se euh, boobu soreeguñu ñu ngi ay kii laa ko doon dégg bi ma demee chirurgie bi njëkk dem chirurgie Dantec hôpital Dantec urgence ay année 92 lañ doon gis ñu am péritonite c'est-à-dire biir bu bënn ndax feebaru bi ñuy wax salmonellose mooy bi ànd ak ndox mi mais après dafa dañ gisatoo ko ndax ñi ngi traité ndox mi ndox mi amatu ko ndox robine yi ñuy naan ak yëpp amatu ko ay niveau Dakar ak yooyu léegi nga toog ay presque dix ans lu ko ëpp nga déggaat lu mel noonu da nga naan waa loolu man ma def noonu jeex na kii ni ma déedéet fii Touba bëri na Vidal de ma ne ko ah bon mun ma waaw mun ko lan la munuma ndox mi mu ne waaw parce que ndox mi boo ko traité wul boo ko naanee mën na la indil biir buy metti te defe naa li ñuy dépensé ci ordonnance par at euh, mën na fay ndox li ñuy dépensé ci ndox par at ci ci ci ci ci jënd ak feebar parce que ñu ci bëri di nga entrer hôpital am na ñu ci opéré bu fi Ousmane docteur Ousmane Gueye nekkoon tey. dina la wax ni ñu opéré pour péritonite te salmonellose boo ko indi te ndox ko indi donc ndox mi même yow boo ci jotee te wóoluwoo ko yow tam mën nga ko traiter sa bopp ci loo xam ni amul benn seeraange amul dara lu dul sa quantité javel bu tollook li nga yor ci ndox mu traiter ko loolu bu ci xale yi di naan dina leen moytuloo genre euh, problème yu mel noonu euh, daara tam warul nekk foo xam ni ngelaw lu bon dafay jóge bu bu daara boo jegee loo xam ni day polluer usine boo xam ni saxaar sa wala fu ñuy traité nangam loo xam ni saxaar sa day ñëw ci biir daara ji kooku war nga fexe ba xale yi book ñu def foo xam ni dina leen moytul euh, yu mel noonu fi ñuy tëdd fi ñuy tëdd itam war nañ ko saytu ba mu bañ a nekk loo xam ni tam day indi larang ak xat-xat bi parce que tamit da ngay noyyi guddi ay fukki xale bu ñu nekkee ci néeg bu tëju kooku yi ga dina am problème donc dafa war a aéré dafa war a ubbeeku ba nga xam ni dinañ mën a euh, noyyi euh, niñ ko bëggee euh, xam naa ni comme ni ma ko waxee woon ci début bi rek temps bi dafa xat donc am na ci loo xam ni dañ koy junj comme ay ustaas ay intellectuel ay borom xam-xam. la ñu nekkal euh, lañ koy résumer rek te di dellu di wax encore euh, suñu benn professeur daf ñu daan wax naan man kat dama leen a war a jàngal bu baax ndax ëllëg yéen may faj wante euh, kiy jàngale daaratam tam na ni ñii kat dama leen di jàngal bu baax dama leen di saytu ndax ñoo may yore ëllëg ñooy yore réew mi ñooy yore suñuy mbir te ñun fu ñu bëgg mu egg fa mooy nañ fa eggale ndongo yi ñu yor ci wàllu santé ci wàllu hygiène ci wàllu tamit li nga xam ni moo fa ëpp solo mooy xam-xam bi ñuy def ci seen bopp euh, di dellu aussi bala may jeexal di gërëm waa Touba ci kanam parce que seen liggéey rafet na euh, sel na euh, ñëpp gis ci seen bopp te lii jëm ci wàllu daara dafa nekk loo xam ni euh, kenn du leen ci fekk ndax euh, xëy na am na ñeneen ñuy defar tali booy defar am na ñeneen ñuy defar booy defar euh, poste de santé am na ñu ko waroon def xëy na yéex ba nga def ko wante booy defar daara kooku moom sa liggéey la loo xam ni moom jarul ñu la ciy soññ jarul ñu la ciy def dara loolu moom kenn du la ko kenn du ko xëccoog yow ndax ña ko war a def dëgg-dëgg te moom la jàppale duñ ko def donc kon nag dañ leen ci gërëm di leen ci sant ndax daara xëy na tumuranke na tumurankewul ndax euh, loo xam ni ca kanam rek lay jëm waaw ndax ku gis démb gis tey xam ni daaraa ngi avancé mm-hmm. xam-xam nag comme du doy toujours nit ki day jëggaani ndax Euh, même que nga ëpp xam-xam di nga dem ba seeti ko mu jariñu ca nga jariñu ndax xëy na ëpple nga ko juróom-ñeent mais am na benn yow boo xamul boo xam ni ba nga fa jógee jox ko sa juróom-ñeent am na benn bu la jox boo xam ni yow boo fa jógee léegi fukk nga am alors que ba nga fay dem boo ni woon damay romb jàll ndax kii daal li ma ko rawee mënumaa amal njariñ mais yow demal rek dimbalee ko sa juróom-ñeent yi nga xam xëy na moom am na benn bu mu yoree boo xam ni yow tam bu la ko joxee boo fay génn yorotoo juróom-ñeent mais fukk nga yor donc loolu tax laabirante bii ngeen di laabirante jàppale bi ngeen di jàppale aussi ñun tamit dañ ci kontaan euh, di ko rafetlu di gërëm aussi sama jawriñ euh, docteur Souran ndax bu ma nee yàlla ak moom moo tax man tey ma nekk fii ndax moom moo gisal boppam ni ma yow mii dama bëgg nga ñëw liggéey ak man Touba ma ni ko ah man de sama mag nga loo ma sant awma ma lu ma ciy wax mu ni ma daal doo dem cees xaaral demandeel nga ñëw tuubaa ñu lijjanti ko topp ci ba mu sotti waaw bu may ñëw nag coow li bëre woon na comme niñ koy waxee mm-hmm. waa Fuuta lu nekk wax nañ ko wante <laughs> yàlla baax na après comprendre nañu biñ ñëwee tam mu jàpp suñu loxo ak ñu suñu équipe yëpp yóbbu ñu ba ci sëriñ Saliou yal na yàlla yokk leeram ni ñu man de ñii laa tànn pour ñu ñëw jàppale ma ci liggéey bi fii mu ñaanal ñu ni yal seen liggéey barkeel donc kooku ki la teg ci yoon boobu liggéey bu mu la laaj ak nu mu mën dem ci dëkk bi danga ciy sawar rawatina nag euh, jàngalekat ak ñoo xam dañuy yar te ñun ñu bokk ci euh, beneen année donc bii passé avant may yëg conférence bi am na oustaz bu nekk fii ci dëkk bi daf ma woo envoyé message ni ma ah waajur bi de wàcceel nañ ko ñaari kaamir sama waajur lim may wàcceel kaamir ci at mënuma xam ñaata la suñu waa kër ma envoyé leen message ñu ni ma ah sa de baax na ma kooku noo ko fayee te koo xam ne jëflante ngeen amoon hôpital rek mu jàpp la ca ba di la ñaanalal sa waajur at bu nekk bul xam ñaata yoon la koy ñaanal kooku xam nga ñun jàngalekat yi mënuñu leen a fay féete nañ ñu foo xam ni euh, leneen lu mu laajoon tamit ñu def ko pour jàppale leen euh, beneen jàppale bi may wax moo jëm ci ñi yor daara nekk ci fu jege poste de santé yi te ñun bi ñu nekkee district ak docteur Souran doon na dox ndax post bu nekk da nga jëloon daara yi nga dendal nga leen di jàppale xale yi ñu wutal leen ay carnet ñuy dem foofa di faju ku ci am loo jaax ñu faj la gratuitement parce que euh, maa ngi ci doon discuter léegi docteur Souran ah, jafewul cherul parce que garab yi ñuy joxe ci biir hôpital yi cherul ba pare hôpital bi loolu mooy vocation ndaamaatu lee fa nekk comme daara di toppatoo xale yi ku xam ndaamaatu xam docteur Souran ah, xam ni mu meloon ni daaraa ko fi indi parce que bu ko Serigne Saliou di indi fii Euh, foqar ci ko ni ko sax dootoo dellu ba bi muy def teesam sax fii la ko fekk booba daara yi moo taxoon donc daara yi dañu bokk ci santé ci dëkk bi donc jàppale googu tamit mi ngi am ba léegi ci district bi donc loolu daara yi am ci wàllu santé ci district bi loolu bu yokkul du wàññeeku donc kon waa daara war nañu jege centre de santé bi dem di jël li ñu moom euh, collaboration bi sax xam naa ni am na xëy na am nañu fi nekk nii ñu ngi koy dund mais nañ ko gën a topp waaw ndax seen moomeel la parce que dëkk bi moo askana loolu dëkk bi ñi fi nekk ci sante di ko doxal waa diine la ñu jëkk jiital ci lépp lu ñuy def donc loo fa soxla te nga war ko am dinañ la ko defal donc ci loolu dama koy wax ci turu docteur ndey Maguette Diop mi jiite district bi ak docteur Moustapha Souran ak docteur Makhtar Lo ñooñu ñëpp ma xam leen bu baax liggéey ak ñoom docteur Ousmane Gueye mi ma fi remplacé tey daanaka da naan man ba may jógee Ourossogui moom ca la ñëw Ourossogui def fa stage rural bi ma ñëwee fii moom ndaamaatu lañ ko indi woon mais ñu ni ko ndaamaatu comme déjà am na ñaari chirurgien fële amul chirurgien dañ la yóbbu docteur hôpital Fawzeyni donc mën ak moom vraiment suñu ñaari ki dafa mas a jaxasoo hmm. donc moo tax tamit di ko ñaanal fële mu nekk liggéey ba mu fa tàmbali yàlla may ko ci ndam te am nañ ci yaakaar euh, donc ci loolu laay jeexale di leen sant di leen gërëm bu fekkee am na tamit ay laaj wala dara boobaa dinañ sawar tontu ci asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, laaj bi ci njëkk ki day laaj euh, gémmiñu xale buy neewi rek hmm. lan moo koy waral gémmiñu xale buy neewi rek hmm. euh, nga tontu ba noppi waaw waaw ma jël note waaw ah, mandarga am na ay saan hmm. ak lu muy bañ ak lu koy saafara ñetteel mooy numéro yi lu koy joxe ak lu muy bañ lu koy saafara mhm. euh, saare tam ngi laaj ndax gore bo garab yi wala ko faj wala kii day laaj xale boo xam ne day ngelawal lu bare bare mhm. Mhm. day ngelawal waaw kii day laaj tàggat yaram daw ak dox ci ëpp njariñ kii moom day laaj xale boo xam ne day nelaw rek te fi mu koy dalal mooy bu toogee di jàng day nelaw rek ndax feebar la wala laaj boobu moom naa benn laaj la waaye laajal nañ ko ñëpp waaw <laughs> kon baax na kon loolu moom ci ay laaj ok euh, waaw damay tàmbale euh, affaire euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, bi ñu mujjee xale buy nelaw rek buy jàng di nelaw rek dafa am lu am solo ci daara muy santé mentale xam nga OMS bu ñu définir wér-gu-yaram nekkul rek ki feebarul dañ naan wér-gu-yaram mooy ki nga xam ni dafa am bien-être physique mental ak social kooku lañ naan mooy définition wér-gu-yaram mooy wér daal wér nekkul ci rek awma feebar mais bu sa bopp uboo kooku boolewuñ ko ci bon santé ndax ki boppam ubu moom mooy xaru moom mooy def naka su dul noonu mooy mer gaañe et cetera loolu aussi ci santé dañ ko ciy boole social mooy ki nga xam ni Euh, dafa am xat-xat ci liggéeyam euh, mu ngi la muy fayee ko mayu ko mu euh, nekk à l'aise kooku dina am xat-xat boo xam ne mën na dikk di delluwaat ci jikkoom ak ci leneen gàllankoor goo xam ne mën na indi problème moo tax yooyu yëpp dafa bokk ci bien-être santé mentale dafa am solo ci daara ndax xale bu nekk ak personnalité te da ngay gis xale bu dëgër bopp wala xale bu léej ñu dóor ko ba gaañ ko pourtant du tayee fam euh, dafa am lu nekk ci moom loo xam ni fokk nga comprendre ko nax-naxal ko ba tàggat ko pour mën koo jariñoo mais boo ko debeek force dinga dem ba mën nga ko rey doo ca du ci am benn njariñ xale bi ngay wax mental bi foofu la wute xale bi ngay wax dinaa la duma mu tiit ba feebar te laaloo ko da nga ko digg ay duma rekk mu feebar am xale boo xam ne boo ko dóoree ba nga teggee yar bi la nga doon bañ tey la ko gën a mën a def ndax ci mental bi kooku nag du dóor nga koy faje xëy na am na benn dara loo xam ni boo ca jaareek moom rek la nga bëgg yépp di nga ko am kële moom dafa ragal yar bu déggee yar rek lépp lu ñuy bañ dina jàng dina normal parce dafa ragal loolu mooy kéem mais du ñëpp ba pare comportement xale tam du ñëpp a yem même comportement xale buy tàyyeel il faut nga xool lan la parce que diabète am na ci xale yi bërka démb laa gis koo xam ni xale bu ndaw dafa am diabète papa ji ni mukk du ci dal papa ji moom nanguwul ni am na diabète te dañ ko war a opérer gis mu am ñu yóbbu ko pédiatrie ñu ni dafa am diabète il faut ñu xaar ba ñu kii ko pour mën a opérer papa ji ni déedéet moom war nañ ko mën a opérer ndax diabète et cetera et cetera mm. te pourtant euh, ni ko mag di amee noonu la ko xale amee mm. effet ya muy def ci mag noonu la mën a def ci al boo ko xale buy nelaw mm. buy jàng di nelaw war nga xool lan moo tax ba pare ndax amul benn problème mu wér-gu-yaram kool ko bu baax bala nga ci wut yeneen saafara beneen laaj bu mu doon laaj ci wàllu gémmiñ guy neew yi loolu toujours li may wax rek nit ki euh, am nay garab yu olof ndax kët ci lañ daan fajoo ci la maam daan fajoo te garabu tubaab boo gis tam ci xob lay jóge walla ci ay reen walla loo xam ne dañoo xam ni reen bii nii la mel ñu gëstu ci laboratoire ba gën mën a defar la mel ni loolu te du jaar ci reen donc loolu rek indi kii bi tey jii suukar dañ ko defar ba mu nekk ay bekk mhm. ngay sotti mu mu mu seey mhm. moo gën a yomb nga dem wuti lem mhm. di ko suukare xëy na ci suñu maam ya buñ bëggoon suukar lem la ñuy wuti ba suukar cristal amul wante nag bu amee dootoo sonn da ngay jël cristal rek sotti mu saf suukar nga kii loolu moo indi médicament loolu moo indi ay comprimé loolu moo indi garab buy fuur ku nekk di xool nan lañ ko mën a defaree ba mu gën a jëpp jàppandi loolu ak science ak médecine ñooy ànd nekkul ni lu ñu defaree noonu rek dafa am leneen lu muy nirool reen a ko gën wala de reen lan moo ci am solo mooy la muy faj mu mën ko faj nga bañ a làmbatu médecine du joxe garab bu kanam bu gémmiñam neewee yóbbu ko ca kay faj mu seet ndax kay kay faj moom defarul garab dafa jàng pour xam feebar bii lan moo koy joxe ak lan mooy fajam mu daal lay jox tegtal nga daal dem ca garab médecine feebar boo jël booy ubbi téere léegi ñu ni la feebar nangam de garab nangam wante ndax feebar boobu moo la dal loolu mooy médecine médecine day xool yow ban feebar moo la dal mais tey feebar boo jël boo nee dama sibiru ñun la tel garab a koy faj muy comprimé wala reen wala lu mu mën di doon damaa tooy tel garab a ca gaaw muy comprimé muy reen mu mën la doon dama am euh, saan mën nga ko faj ci ay reen ci ay xob comme mën nga ko faj ci ay comprimé bu xob ba dee faj saan dina la faj bu fekkee léeg-léeg laaj da koy faj te mu koy dëgg-dëgg di ko faj boo naanee laaj dina faj say saan mais lan mooy am importance mooy nga ni ndax saan laa am loolu mooy médecine ndax lii laa am médecin dalay seet ba ni la lii nga am bu ko mënul gis mu def analyse ban la yow kët sa rein moo am xeer wala yow kët sa nangam nga daal di xam lan moo koy faj ak ban faj mooy ci gën loolu mooy médecine médecine du rek dama jël samay kii sol fa samay garab wala dama kii sol fa samay reen déedéet mooy nga gëstu nit ki ba xam lu ko dal boo xasee xam lu ko lal rek xam nga lu koy faj ban la ci nag après kooku bu nekk di donc saan lépp ko mën a faj muy comprimer muy reen mais nag fekk ni reen ba wóor na la ni reen buy faji saan la euh, beneen bi hémorroïde hémorroïde bare na booy déglu rajo sax léeg-léeg da ngay tiit da nga naan bu nit ñi dee gëm lii lépp ñuy wax xaw ma fu ñu jëm hémorroïde dina yegg ba ca bët ba dina yegg ca biir ba dina yegg ca ndigg la dina jàpp tànk ya dina jàpp fu nekk alors que hémorroïde siditu deret la bu tudd hémorroïde bu nekk ci bunt bi ñuy demee ginnaaw kër ca buntu ba la nekk nekkul ca biir nekkul fenn dafa bokk ci yi nga xam ni dafa mel ni mat la boo xam ne dañ ko def ca bunt ba pour ci raccantal bi mu koy permettre muy téye yu sew yu mel ni ngelaw buur si dit deret yooyu amul woon kon nit du mën a téye ngelaw waaw donc dafa bokk ci mooñaale nit bu fekkee nag dafa chauffé wala dafa neewi ci lañ naan nit ki dafa am hémorroïde bu neewee ba ëpp muy nekk mi ngi mel ni gémmiñ gu chauffé ku sa gémmiñ chauffé ñu ni la yow kat sa gémmiñ dafa chauffé mais laalul sa put laalul sa biir laalul sa dara ci gémmiñ gi lay kooku nag gémmiñam di sofe bu nee daa bëgg a socc comme ki nga xam ne dara jotu ko bu jonjee ñaari yoon tëf li mu am deret boobaa lan lay wax ah man kat sama signe mi daa sofe ki am hémorroïde bu fekkee dafa seere cabinet ba romb sidit bi deret bi sofe mu jonj ko mu nàcc mais bu seerewul deful dara mën na ko bañ a indil nàcc mais mën nay metti kooku bu demee bu ñu ko xoolee ni ko da nga am hémorroïde hémorroïde boobu la ñuy faj ndax hémorroïde ba du indi mettitu biir laalul sidit lul dara mu ngi mel ni ki am bët ñu la yow de da nga am bët mooy ki wànnent mais ñëpp am bët mais buñ nee yow da nga am bët mooy c'est da ngaa wànnent ki am hémorroïde dañ naan la da nga am hémorroïde parce que hémorroïde ba moo am feebar li koy yokk indi nag sëriñu daara yi Euh, toogaay bu yàgg ndax boo toogee sa deret du circuler te bu circuler wul veine yi nga xam ni mooy sidit yi nga xam ñooy delloo deret di taaju hémorroïde ci la bokk foofu ci ëpp ci muy taaju ci la bokk moo tax ñi nga xam dañu taxaw taxawaay bu yàgg comme militaire yi nga xam da nga naan sëmm benn place doo fa jóge ndax da ngay garder ñiy toog toogaay bu yàgg ci bureau chauffeur tailleur jàngalekat ñooñ la gën a yab ndax dañuy toog te dox bi ngay dox say tànk dëgg tànk yi di di di di naju sidit yi di ko naj mooy tax deret ji mën a gaaw dellu ci xol bi bu fay jógee di dem xol bee koy pompe dooley xol bi mën na ko yeggale mi ngi mel ni forage bële buñ ko ubbee mooy tax mu yegg si mais bu amoon retour mën nga ni fokk nga am machine yu koy pousse pour mu dellu dox bi ngay dox sidit yi tànc ñoo koy pousse muy dellu léegi nag boo doxul kon dellu ga du gaaw day yeex muy taaju loolu mooy favoriser hémorroïde te hémorroïde du paase fudul buntu boobu fa la sidit ba nekk beneen bi ki doon wax naan ballonnement ay faral di ngelawal kooku li ci ëpp mooy lekk yi ñuy lekk ceeb pat mburu lekk sa biir dafa mel ni usine boo ko lekkee daf koy soppi daf koy togg mais boo ko joxee loo xam ne togg ga dafa yeex fu mu waroon def ñaari waxtu mu fa def fa ñeenti waxtu kon fu mu waroon defar tuuti ngelaw dina fa defar lu bëri te ngelaw boobu moom bi nekk ci sa biir nii yeggagul comme ku naanoon boisson ba ngelaw li bare xam jaaragul ci tuyau yi ci ci mbànd mi la yem comme mu nga ne te forage bi kooku mën ngaa géex mu wàññeeku ndax yeggagul mais bu xasee dugg ci tuyau yi dootul dellu ci forage ci robinet rek la jëm mooy nga ubbi sa robinet mu naan fërërërër ba kero ngelaw ndox di ñëw ndax ngelaw la jotoon a dugg ci biir ànd ak ndox mi tamit day génn noonu la mel ngelaw li lekk gi defar walla leneen ci biir bu tiwo yi mënatul jaare ci gémmiñ gi génn ci suuf rekk la mën a jaare donc bu ngelaw la baree ngelawal ba bëri ndax ci tiwo ba lay nekk rekk gur gur par kër kër ak biir bu ni dàng nga xam ni booy tëgg mu mel ni bal nga xam ni kii ngelaw li bëri na boobaa nag nga xool yow euh, ñam yi nga xam ni bëri na lum la koy def nga wàññi ko bu dee loo mën a bàyyi nga bàyyi ko man du ma naan boison gazeuse parce que xam naa ni supporté wu ko ma ci naanoon benn kaas ñeenti fan dinaa xam ni sama biir bi day ballonné donc man maay mag mooy faj boppam nga bàyyi euh, di nga dem léeg nit rus rus nit gàntu ko mu defee ni dara la nga naan wante boo demee di nga ni ma yëgoon du ma naan léegi nag boobaa dootoo ku la wax nga ni ko jox ma ndox parce que xam ni baaxul ci yow mais keneen am na leneen am na koo xam ne bu lekkee maafe du am jàmm mais am na ñoo xam ne maafe leen gënal donc am na loo xam ne ci nit ki la am loo xam ci alimentation mais nekkul loo xam ni feebar systématique la yow yaay xool li sa biir di bañ nga xool nooy defek moom nooy nax ak moom waaw beneen bi mujj mooy sport daw walla dox lan moo ci gën yépp a baax l'essentiel mooy ku nekk na nga def li nga tolloo am na benn ay boroom xam-xam américain yu defoon benn euh, étude ñu ni ki dox fanweeri minute moo ki daw juróomi kilomètre moo yem ci wàllu wér-gu-yaram cardiovasculaire donc pour wan la ne la dox li daw baaxe noonu la dox baaxe dox nag waxuñu la nga dox tànk yu dëgër bu la neexee nga yor sa kurus bu la neex nga def ki mais daal nga dox tànk yu dëgër ba mat 30 minutes loolu defe naa jafewul ci sëriñu daara boobaa bis bu nekk nga wutal ko sa waxtu woo xam ne boo jullee timis ba pare wala boo jullee gee ba pare war a fajar gi nga wut sa distance boo xam ne wala nga ne bu ma wàccee bala ma yegg kër ga dama koy dox au lieu ma jël oto wala nangam loolu boo koy def loolu baax na dara gënu ko ci wàllu sport donc foofu lay mujjee rek am ni léegi waxtu bi asalaamaaleykum euh, nan ngay def bu ko xale bi amee li ci ëpp mooy euh, waaw si ñi nga xam ni moom mooy ànd ak xale bu am saan euh, léeg-léeg sax ak mag mu am saan parce que saan ñépp a koy am amul ndax saan nekkul suukar nekkul saan ay doomu jàngoro la yu nekk ci suuf si ak di wadd ci suuf si ak seeni nen te amul kudul laal dara laal ko sa gémmiñ wala sa loxo wala sa dara donc neni saan yi fokk muy dugg ci suñu yaram donc mais bu fekkee ni ñaari weer ñetti weer yu nekk nga jël garabu saan au moins lu fa nekkoon dina ko rey boo gisee léeg ñu naan la boo jëlee boo ko gëjee jël ñun la jëlal garab bi boo toogaatee fukki euh, deux semaines nga naanaat ko parce que bu fekkee naan nga ko mu rey yi dund nen yam fa bàyyi kon ñoom garab bi reyu leen mën nañoo judd ci diggante bi màggaat fi ba indiwaat yeneen sànn léegi nag bu fekkee rey nga euh, yi ko juróon bu nen yi juddoo nga rey leen kon daanaka mën nga ni la ngay indiwaat rek moo la ko mën a indil mais ya fa nekkoon rey nga loo tax ñuy traité bu amee 15 jours ñu traité waat xasan xale souvent yaram bi day xasan ndax kii allergie gi ñu indi sëqatu guddi surtout sëqat bu wow ndax dañu am benn phase boo xam dañuy xaw a ñiiraamtal euh, ci ci kii bi baat bi mooy indi ñuy sëqat gisee xale buy sëqat guddi mu nekk sëqat bu wow wala mag sax ba boobu dem naa ni garabu saan bu dee xale tamit léeg-léeg xiiboon biir bi rey biir bi rëy nga xam ni dañ naan ko loo lekk rek saan ya koy lekk ndax saan bëri nañ ci biir ba du mën a digere ni mu waree donc day xiiboon foofu sax dinaa la wax ne la tamit daara war nañu surveiller ci wàllu alimentation xale bi ràgg ak xale bi euh, manqué ay vitamine xale bi manqué euh, lekk bu baax walla lekk bu baax day perdre poids commencé jeex ndax dafa ràgg ndax yaram bi dencul mais la mu la mu jotoon denc sax mu ngi koy jël parce que nit day am reservoir boo lekkee ba suur li ëpp daf koy denc graisse bu graisse bare nga nit kaa ngi am yaram mais bu demee ba soxlo graisse ba lay jël bu yàggee jël ca graisse ba nit ki di rees bu yàggee ñu ni dafa wow ndax lan nit ki euh, sa yaram bu soxloo téeméer ci yi ndax li ngay liggéey ak li ngay xalaat ak li ngay jàng nga jox ko juróom-ñetti fukk ñaar fukk yi ci yaram bi la koy jël nit lan la mënul jël ci yaramam der ak yax mais suux yi moom daf koy ŋàcc ba nit ki wow koŋ ndax dafa waroon jël téeméer nga jox ko juróom-ñetti fukk téeméer ya mu war a jël moom dina ko am comme joxoo ko ko mu jël ko fii ko denc denc bi mu yoroon bu denc ba jeexee muy graisse bi muy jël ci suuxee ba nit ki mën na dem ba wow koŋ mais di dund mais parce que yaramam lay dunde donc loolu moo indi jeexaay bu fekkee tam dafa manqué ay vitamine mën na bañ a jeex mais day am ay problème mu yax yi du dëgër karaw gi di ruus euh, tànk yi di neew yi wala kanam gi di neew yi pourtant perdre le poids mais dafa manqué ay ferñeent pour que yaramam dox comme il le faut loolu tam jar na bàyyi xel euh, wàllu donj yooyu ñuy xool ci xale normalement sage-femme ku rewli dafa bokk ci yi nga xam ni moom nga war a xool ndax bu fa nekkul war nañ ko gaaw saytu dafa takk ci kaw ndax ba mu waree wàcc ci évolution xale bi buy toll ci sept mois la commencé yi nekk ci position bi mu war a nekk bu juddoo bu fekkee am na lu ko gàllankoor ci diggante bi parce que fa mu waroon jaar dafa fat wala sidit ba ko waroon wàccee dafa gàtt mën na takk ci diggante bi na am na yeneen malformation yu ko mën a indi bu boobaa bu ko xa bu ko sage bi xoolee wala ki rew li wala yaay ji loo tax ñuy wax yaay itam di leen xool seeni doom euh, kanam géeg yëpp ndax cër yëpp ñëw na boobaa ci ñaari at yi war nga ko wàccee ndax boo ko wàcceewul tàngaayu yaram bi day rey bu ëppee ñaari at kooku mun na nekk góor mais mënutul am doom ndax day yàqu ndax moo waroon defar ferñeent yi war a maye doom te bu yàggee ci biir yaram bi ak tàngaay yi yaram bi lu ëpp deux ans kooku mën nga ko wàccee de mais mënatul a baax donc moo tax ñu war koy xool ci xale yi bu leen di defal visite waaw parce que euh, boo ko ratee ci ñaari atu jëkk yi rek xamal ni mën nga ko wàccee ndax liy tax a nekk góor moom xañu ko ko ndax mooy hormones yi mooy testostérone yi yi muy sécrété mais usine ba per yi muy defar muy maye doom moom usine ba mënatu koo defar donc dina nekk góor dina nekk yëpp wante nag euh, du mën a am doom waaw loo tax mu jara saytu euh, waaw drépano kooku feebar judduwaale la ndax sa yaay la koy jox wala sa papa wala ku nekk jox la ko ku nekk jox la benn muy SS muy bi nga xam ni moom dafa metti ndax ñi ko am rarement la ñuy dépassé ñeent fukki at ndax sa yaram dadul day jànkoonte ak ay feebar yu bëri ba pare néew doole néew doole goo xam ne c'est rarement la ñuy am gudd fan moo tax ki am drépano dañ naan la booy am soxna wala booy takk soxna fexeel ba am koo xam ne amu ko ndax bañ a am risque loo tax tubaab yi souvent ñuy def li ñu tuddee bilan prénuptial ñun euh, dañ naan la booy takk soxna war nga ko saytu booy wut jëkkërtam war nga xam lan la mais ñun loolu waroon nañ koy saytu ñun tamit mën nañoo defe naa presque question yi ki mujjoon wax ci wàllu ndigg luy metti euh, ça dépend parce que euh, li ci ëpp ci ndigg yi metti euh, wàllu yax la ñuy wax arthrose arthrose comme mun nga ni yax dafa am nu mu bindoo noo xam ni euh, liñ naan yaxu ndigg mm-hmm. bu amee dara lu juba jubul na mu waree rek mm-hmm. day daal di indi problème mu mettiti ndigg mm-hmm. ndax euh, yax boobu dafa nekk genre comme mu ngi mel ni bu ñu tegalee woon ay carton mu jub xoj ñu ni la surveiller ma ko bu la neexee nga lal sa sijaada tëdd di nelaw parce que amul risque mu daanu amul risque parce que jub na xocc amul dara lu ci am problème mais bu fekkee bañ koy tegale dañoo dem ba yàgg benn kees wala ñaari kees yoo xam ni tegalewul normal ñu ne la gardeel ma ko nga nga téye ko ku la fa romb nga ne ko man de sonn naa ndax lan da nga toqi ci téye bi nga téye te pourtant mënoon na ñàkk mais dafa am yax bu kees gu déplacé wu wala tegul na mu war a tegu loolu souvent day arrivé ndigal bu jubul sidit yi ko wër nga xam ne ñoo ko war a téye ñoom ñooy jéem a régler loolu ñoom ñoo koy jéem a aw bu ko defee dañuy dem bay metti ndax lan lañ leen teg dafa metti ndax tàmmuñu ko ndax yax bi moo dëng wala jubul na mu war a jubul sidit yi nga xam ni euh, boo ko doon xam mi ngi mel ni ci tibb zone yi yëbb ci sidit yi yëg-yëg comme tey bu ñu la dompee li tax nga yëg ni dañ laa domp parce que courant bi dafa jaar ci sidit mu indi ko ba ci yuur gi mu analise ko ni domp la dawal mu xëcc tànk bi walla mu daw léegi nag bu fekkee ni sidit boobu fa muy jaar dafa am lu ko kepp muy metti kooku du ci mu ngi mel ni nga gis làmp bi muy xoyu kamaj nga ni du ci lampe bi de mais ca compteur ba fa fil bii duggee ci compteur ba mhm. dafa am lu ko fa kepp mhm. boobaa lampe bi mooy am problème mhm. mais parce que yëg-yëg bi foofu la mais sidit ba fa mu ko keppee mën na gën a sore donc day nekk soit yax bi moo dul placé na mu war loolu indi ñu lay defar rajo pour xool ndax jub na wala jubul ak sidit bi léeg-léeg bu dee neurochirurgie ñuy def ay test ni ni électricien di tester ay fil ñu koy teste fil yi pour xool ban moo am problème ak fan la kepp am ci yoo xam ne nag mën na egg ba neurochirurgien bi ni fi mu ko kepp il faut genre ñoom professeur Ndaraw Ndoye defe naa ñu ko fi xam bëri na parce que daal ñooñu ñoo naan la fokk ñu kepparti ko ndax sinon métit yi du dàkk léegi boobaa ñooñ ñooy dem opérer wala dara pour jubbantiwaat pour mu delluwaat normal donc pour te dire que ndigaluy metti mën na lu bëri lu muy doon mu loo xam ni simple amul gravité comme mën na nekk loo xam ni mën na dem ba ci opéré donc li koy joxe bëri na nekkul benn feebar wala ñaar donc feebar yu bëri mais lu mu ci mën a doon boo ko gëstoo mën nga xam ban la ci bu fekkee toogaay bu bon na koy joxe parce que tamit euh, sëriñu daara yi am nañ problème ci toogin parce que souvent du ñu toog toogaay bu baax dañuy sóonu wala ñu yor seen piliyaan wala dara alors que toogaay toogaay baax mooy toujours chaise bi ngay toog wala fi ngay toog da nga war a def nii angle droit ak ndigg li parce que bu ma sëggee nii day aw ci fii bu yàggee bu ma defee nii tamit cate day aw fii donc yooyu dinay indi ay ndigg luy metti bu fekkee dafa doon metti ma tëdd ci piliyaan piliyaan du position physiologique du position bu baax tëdd ci gong sax gu waw wala matelas walla wala basang mu waw tàlli moo gën a ànd ak suñu physiolo physionomie mais boo jëlee sa euh, piliaan wala nga sóonu walla nga toog daldi di def nii ba mu yàgg day day xaw a jàpp ndigg toogaay bi gën mooy toogaay ni li ngay xool tolloog sa gis bañ a boo sëggee nii tam léeg-léeg nga ni nii sëgg nii lu yàgg bu yàggee loos bay metti donc yooyu yëpp bokk na ci loo xam ni dina indi gàllankoor sëriñu daara ci wàllu position ndax ni muy euh, kii du baax même kii nga xam ni dafay am problème mu ndigg wala bokk mu jëm benn âge bi euh, même boo doon sëgg di jël dara dañ naan la am na noo xam ni waroo koo sëggee kenn du sëgg comme euh, comme dañuy jàngale rek kenn du ko kenn du sëggee nii comme boo doon jël satala wala loo mën di jël diisul wala dara nga ni nii boo ko defee fii lay aw booy sëgg bañ mu laal sa kii da ngay yuug da ngay yuug saa yooy sëgg bul def nii del yuug nii jël Mhm. jógaale boobaa ci wóom yi fii lay aw mais pas ci ndigg li mhm. donc pour éviter kii yu ndigg yu mel noonu da nga ciy bàyyi xel mhm. euh, beneen bi boo doon yëkkati même booy yëkkati dara kenn waxu la nga def nii ñëw euh, yëkkati poids wala dara directement nii rek yëkkati déedéet sëggal yëkkati wala puusal sëggal puus mais ni euh, kii nii banque nii direct fii lay jëm si ci ndigg loolu donc daf koy yokk donc booy def yooyu dina tax ba euh, yu bëre mooy nga dégg nit ni man de dama jekk ba yàgg rek sama ndigg la ni kat mënatul def dara mu toog ay fan yoo xam daf ko indi problème ndax lan amoon na ndigg xëy na feeñul woon moom mu déclenché ko moom mu def geste boo xam ne rek danaan man de dama dama doon man de ci toilette di laa dugg rek ni nii rek sama ndigg la nit kak mun sama ndigg la dafa rax dañ koy wommat wala buy kii yëpp di lii moom diggante bi gaaw na de baa du seytaani fekk ni moom moo def loo xam ni moo tax foofu daal di déclencher donc yooyu boo koy def dina la éviter yenn accident yi ci ndigg la <laughs> donc yooyu moo fi amoon ci laaj donc asalaamaaleykum wa